waroon ko jox avocat yi jox ko euh, euh, procureur. mu saytu. ne ñii nañ leen convoqué. Mhm. xam nga loolu daan jàpp naa ne mooy yoon. bien sûr nekk droit. tout mais tey su fekkente ne benn nit dem na ba nekkat wax dëgg yàlla andi woon naa fa pièce justificatif. Mhm. waaye ka nga xam ne moom ci boppam. moom dafa ne dañ kaa tuumal waaye dañoo falsifier ay mbiram su boobaa enquête. amaat na ci wàll. d'accord tey nit bu ñëwee Seydina Mohamed. Mhm. signé ak yow benn convention jox la benn somme desal la benn somme exemple cinquante mille pour cent desal la cinquante pour cent nga ne ba benn jamono entreprise bi signé ak yow contrat convention de wuti cabinet d'audit externe cabinet d'audit bi ñëw ne la bëggoon nañu nga wax ñu ndax yow compte bi nga joxe yow pour ñu virer la ci xaalis ba mu ne xaalisu askan wi la te nga signé convention en bonne et due dañu mën nga andil ñu confirmation compte bi xam nga laajatuñu ki nga xam ne moom moo moom état bi signé yow convention ba la les cabinets d'audit externe moo ñëw laajte la yow sa compte banque société ndax compte bu crédible la. d'accord léegi yow bu fekkente ne tontu woo. cabinet d'audit externe bi ki nga xam ne moom mooy de kese xaalis jox la. te nekk at alalu état. Mhm. kooku wàcc na ak yow ba léegi cabinet d'audit bi lay laaj preuve. ak yow mhm. yéenay topp yoon. d'accord donc yow da ngay am obligation jox ko preuve bi wane ne xaalis bi ñu la versé ci sa compte compte boobu crédible la su boobaa bu fekkente ne faux usage foo am na ci yow cabinet d'audit externe du la topp mais de topp société étatique bi nga xam ne moom moo def ay mbuxum moo tax ma ne la benn côté am na ci benn complexité bu ci am mais dans l'un ou dans war nañ ko mën a leer nañu topp droit. tout à fait parce que tamit les sénégalais ont besoin de savoir seen xaalis. fa laa topp droit bi. mooy. et puis gars yi dañoo ñeme quoi. xaalisu meer xaalisu meer gerte. non mais dama ne. xaalisu puy sama wax bari ñi nekkee fii nga yaakaar ne sama xaalis demul mais ñun des médias participé nañu. Eh, man sama xaalis ku ko Saliou participé na man bu dee téeméer man joxe naa ko. dama ne maire buy jaay taabal légume participé na gars yi ne ko bàyyi. dama man de man de sama wàll man ku ko ci lekk tamit boo ci amee doom bu bëri wax ngay am. loolu moom ku ku ci lekkaale sama wàll te lewu la doom ju bari wax ngay am te boo duggee Bambey tamit yàlla na yéex. di nga ma fa xaar bu ma la fa boo ma fa jitoo xaar ma bu ma la fa jitoo xaar balaa maa la jit dana nga delloo ma ma cotisé ko pour dem ajana dañoo ñeme non parce que mënu tax te benn minorité la c'est pas ce que j'ai l'habitude de dire sëñ Saliou et eh, c'est pas ñu ne ci état bi ñëpp am de nekk de bonne mauvaise foi y a des ministres y a des DG y a des autorités très propres y a des personnes qui sont propres intègres dignes et qui sont tellement respectueux et respectent les Sénégalais anecdote très rapidement mi lay jox quand quand quand j'entends wala j'écoute écoute euh, le, le ministre Marito Niang mu muy wax ne en tant que ministre amul amul kër wala wala amul yenn bien yi ñu ne ko yow xanaa nekkoon. man loolu mën naa ko seede. très bien nekkoo woon ne ñu ne ko yow xanaa nekkoo woon par extraordinaire un ministre de la république. kon ça dire que ne. nga baal un ministre de la république ne cela ne dire être riche. mais mais mais aussi négligence am na ci mais ah, ah, c'est vrai que mën nañu ko mën nañu ko féliciter. oui ci benn côté. un ministre la mais mais quand même avec avec les a def attention. non am na kër Dakar non même Dakar sax. laa bëgg a waxee il faut que moom ci la jëndee kër comme ñi nga xamante ne dañuy nekk ministre tey bu subaa ñu am këru millions. cest à foofu lay waxee. mais xam nga lay bañ. loolu lay wax gàttal wax ji ba mu mel ni. non non non non nit mu ne moom amul kër oto bi mu oto état la. waaw non non non mais loolu ah. am na. sëñ Saalum am na yéen danañ dund ba dee duñu leb ba. quand même bien sûr am na yéen ñu ngi dund ba dee. du ñu leb ah, banque. effectivement waaw bien sûr pourtant ay kilifa lañ ci réew mi. oui saa lu ñu doon wax léegi y' a des ministres intègres. mais bien sûr y' a des DG yoo xam ne ñu ngi liggéey ak président Macky Sall ah. bien ñu ngi ànd ak Macky Sall ci ngor. ah oui ci loyauté. c' ak ci baraka. et chapeau à eux parce que xam nañ ne seen diggante seen borom. Mm. dana am compte rendu mais soo xoolee ministres yi nga ñu leen di waxtaanee tout le temps. ñu naan dañoo bari alal bëri wuñu. autorité gën këram yeneen ñi pasar pasar àla bari wuñu les autres soow ils sont en train am na ñu ngi jaamu yàlla mm-hmm. ñu ngi lekk li leen lew te gis nga li sëñ Fallou waxoon rek bàmmeel da nga ciy def ñu def la ci mm-hmm. defoo ci ñu def la ci oh. kon def ci balaa ñoo ciy def très bien <laughs> loolu moo ñu ñu dem très rapidement ku nekk nag li lu am solo nga wax te ci bàyyi xel alors gis nga gis nga Mohamed waaw affaire fond Covid bi waaw liñ ci war a liñ ci Sénégal di xaar moo ëpp liñ ci jot benn situation ci benn contexte la bu bees bu musul dund mu nekk inédit mën nañoo comprendre mu am ay ay quelques erreurs quelques couacs par ci et là mais tey ji rapport définitif tous les ministères concernés dañ ko waroon jot rapport social bi nga xam ne noonu lañ ko gérer yan problème lañ confronté xaar ma ñëw may ma ñëw may ma ñëw non non non non non gis may ma Mouhamed tey ji ministère euh, de la santé bu fekkoon si ni moom déglu na sax li nga xam ne si ni moo di les docteurs ambulanciers yi ak lépp ñu xool yan jafe-jafe lañ confronté ci tali bi. très au moins ñu xam ne si nii am na ay amélioration yu ñu war a def. Uh-huh. pour diggante jëli malaat indi ko parce que gis nga. Ah, Covid bii nii non non. xam nga la mooy problème bi gis nga gis nga problème doo ko xeeb. Mm-hmm. dund nañ corona bi suba mën nañ am beneen problème bu gën a piir loolu dañuy répété di defaat la même chose. d'accord lan laa ci bëgg a wax mooy lan lañ jàngee ci corona bi. non loolu loolu ñi fi nekkoon yëpp tous les secteurs yi fi nekkoon loolu beneen affaire la. non loolu la war a def rek loolu beneen affaire la on a wax d' ñi lekk alal ji ñu ci tuumaal daal nañ ko leeral pour éviter ñu continuer di ko ah. chaque année chaque occasion bu taxaw ñu ne non bambulaa la pour ñu s'enrichir non dañu war taxaw ni déedéet. d' accord problème embouteillage yi ci problème euh, administration dañ ko am. Hmm. problème gouvernance ak yeneen ak yeneen da ngay dem ba benn moment da wax ni ñun. est-ce que suñu administration. dëgër parce que administration bu dëgër. moo ñu mën a éviter loolu genre problème yii. très bien di simuler aussi ay problème di simuler di xool naka la ñuy anticiper loolu. ba tout à fait c'est clair c'est c'est euh, une proposition dégg nañu la kat alors en cinq minutes euh, sëñ Saliou ñu introduire l'autre sujet avant ñu dem publicité muy procès diffamation bi nga xam ne jugaat na diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang alors ñun nag suñu laaj mooy Ousmane Sonko résistera t à l'appel du 17 avril déjà jàngat bi ñi ñëpp def ndax am nga lecture boobu muy appel bi ni ñu ko defee ba fixer date c'est en mode fast track dafa gaaw lool sax. waaw mais Mohamed procès bii moo waroon am sax. cest à bu ñu newoon dans une république normale procès bii moo waroon am. procès bii nii nii. Mm. waroon am c'est-à-dire procès ba waroon am. Mm. lañu ñu bàyyi c'est le procès du Prodac. la indi mbir mi c'est-à-dire loola la waroon a yóbbu tey sous procès parce que doon wax léegi nag affaire impunité boobu. oui 36 milliards yooyu ñuy wax ne moo dugg Prodac ne mëy. Mhm. dañ koy wax ba léegi ba nit ñi bind ci ay téere. je ñun loolu moo ñu gën a soxal parce man de man de man sama wàllu bopp man Serigne Saliou. Mhm. man 36 milliards yooyu ñu waxuñu tey fan la dugg parce que sama dërëm daf caa daf caa dugg comme ni mu duggee ci xaalis Covid bi. mais ces histoires de loolu c' est entre deux individus mais ki nga xamante ñi nga xamante ne dañu yor structure boo xam ne jàpp nañ ne dañu tooñ toute une société toute la société sénégalaise muy l' argent du Prodac boobu ba léegi mhm. te dara amu fa loolu la foofu le procès boobu moo waroon am mais Sénégal en place mais Sénégal on laisse la proie pour l'ombre mhm. la nga xamante ne moom moo soxal Sénégalais yi loolu lañ jël bàyyi ko jël li nga xam ne ay tappale kese kese kese kese kese la dama ne bu jaaroon tey ci yoon procès diffamation bi du am mais. mais là quand même je ne comprends pas sincèrement. waaw may ma may ma rek may ma rek parce que yow moom tu as toujours des problèmes. avec le procès de Sonko. non non non non may ma rek may ma rek ba mu pare. dama ne. dama ne tey bu ñu jaaroon ci yoon. procès bii dama ne du am. li mu wax kay leer na. fa mu jógee ba tii xam nga le problème tey. lu ko sous-entendre loolu jaratuñu ci wax procès bii depuis j boobu ba léegi bañ ko yëkkatee lenn rek mooy objectif ultime bi rendre inéligible Ousmane Sonko du dara du leneen c'est-à-dire sax ñu fi wër-wërloo ci leneen. parce que conférence de presse Mame Mbaye Niang euh, bàyyi na benn baat wax na ne bu yaakaaree ne dafa dafa éligible. mi ngi naan la wax non non xam nga loolu xam non là sax il a franc mais xam nga ñi koy wër loo naan équipe yooyu et cetera. quand même Barthélémy Diaz son procès ça fait dix ans appel am ba léegi exeggul Souleymane ko problème ak ñoom Madiambal Diagne Madiambal waaw ñoom le 17 bii. te loolu te te loolu je dis àtte ba 2021 la woon. des années àtte ba 2021 la woon mais comme on a fait avec l' affaire Khalifa Sall ni ñu ko jëlee taxañ ko taxañ ko taxañ ko taxañ ko ba nga xamante ne xalifa ne nañ ko tu es inéligible. Hmm. cest à le même processus aujourd'hui qu'on fait avec Ousmane Sonko. cest que tous les moyens sont bons aujourd'hui cest à pour mën na ne Ousmane Sonko élection yi doo ci bokk. mais est-ce que mën na ci génn. parce que bu ñu jàppee ne. non man ñaari appel moo am. appelu euh, mais xam nga. xam nga xam nga tey am na lu ñu wax ci euh, appelu parquet. xam nga boo liiree poste Assane Dioma Ndiaye bi. dans dans les normes. appel bi waroon am sax tant que 30 jours yi matu xam nga tax. Mm. parce que ki nga xamante ne moom mooy moom lañ tuumaal moom su ko neexoon tey moom. ba mu neex ba mu vingt et vingt-neuvième jour bi. Mhm. moom mu ne day def appel su ko neexee. donc fi ñu toll nii mënuñu euh, procès boo xam ne le trente bi passé la am en moins de dix-sept jours nga ne appel bi dañ koy fatam fatamee boo xoolee même déroulement procès bi ni ñu def jour boobu procès bi et puis sur le séance ñu joxe encore délibéré euh, verdict bi loolu mooy la ne c'est ils sont dans c'est-à-dire boobu léegi nag affaire bi leer na parce que ça a créé un malaise. première euh, sentence bu njëkk bi sa a créé malaise parce que ki nga xamoon ne moom moo génnoon di bàkku def wóoraa daan ne maa ngi gërëm sénégalais et cetera gërëm ñëpp nangam ak nangam uh-huh. moom immédiatement moo dem taxaw daal ne dafa mer dafay def appel yow ngay gërëm nit ñi ne ne sama der set na alors que sax il n'est pas question de sa del der ici lii affaire discrédit la c'est-à-dire sur l'honneur na ne kay man sama honneur tegg ko mais affaire Prodac moom ba léegi leer la ko donc uh-huh. foofu moom bu kenn wax ay sa del su fekkente ne moom moo taxaw daal di rétracté ba pare daal di def appel en même temps aussi le parquet def appel te li ma lay wax mooy gis nga parquet bi dafa sóobu ci mbir mi alors que parquet bi nee naa la yorom newu ci gis nga procès bi mm. avocat Sonko yi bu ñu plaidé woon mm. dañu c'est-à-dire la procédure allait être annulée parce que le procureur il n'avait pas droit moom ci boppam cest à def plant à la place même de celui qui a été diffamé loolu soo lire code de procédure bi di xam bu baax li nga xam ne man moom moom laa lay wax mm. procès bii ñuy wax ne est-ce que Sonko dina ci génn ak du ci génn man je ne pas jouer au devin mais ma conviction moo di. sa conviction. moo di tey. Hmm. li nga xamante ne moom la ñuy gis nga policiers yi lu leen neex mën nañ ko def. policiers lu ko neex mën na ko def. mais dafa am benn benn pan de la société boo xamante ni ñuy wax mooy la magistrature. Hmm. c'est-à-dire que ñooñu ñoo warul dugg dans le jeu politique. te tey fi ñu toll boo gisee malheureusement sous l'ère de Macky Sall muy waxoon ne moom daf leen di génne sous la tutelle de l'exécutif moom daf leen a gën xool daf leen gën a noot de sorte que tey boo xoolee procès yi fi nekk yëpp c'est des procès politiques où la main des magistrats dañ koy sentir bu baax ci ci ci ci ci ci euh, sentence sentence finale bi ah. donc nag may wax ne magistrats yi ñoom seen wàll bopp war nañu ressaisir waat parce que gis nga au-delà de ce régime là ñoom dañu fi toog dafa am ñeneen ñoo xam ne dañuy dem soit mm-hmm. un magistrat ne doit pas être au service d'un régime déedéet ñoom ils sont ici pour l' état de droit état de droit boobu nag dafa jéggi Macky Sall mm-hmm. day jéggi la prochain président day jéggiwaat président ba nga xam moo ci moo ci toppaat donc li nga xamante ne tey moom mooy seen cër moo di mm-hmm. dañu war a tëddee njaaxaanaay boo gisee la balance de la justice ñu naan Témis ak Diké cest à nii la timis ak dikkee c'est-à-dire nii la donc dañu war a tëddee njaaxanaay hmm. mais malheureusement ce que l'on voit depuis un certain temps et loolu j'en profite pour dire suñu benn xale boo xam ne dañ koo téye jàpp ko un certain Fallé Diaw mu dëkk Tassette dañ ko jàpp téye ko ci manifestation yi aujourd'hui ñu ngi ko dugal téye ko alors que sa gos là ne manifestait même pas il vient de Tassette xamul woon sax géej lu muy riir on l'a pris comme ça jàpp nañ ko tey ñu ngi ko dugal téye ko c'est ay parents jaxal nañ je crois que dañ fi bëree bëri ba nga xamante ne moo tax ma ne tey ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp ah. wóor ñu leen jàpp parce que ñooñu tey seen place de prison parce que ñoom seen yoon newu ci ñi nga xamante ne tey ñoom la war a jël jóbbu leen ci prison yi mooy <laughs> ñi nga xamante ne ñoo luubal aska xaalisu eh, réew mi eh. ba pare di tambaambal fii te ku tëb ñu dal sa kaw parce que simplement ils sont sous la couverture dëgg du yoon